sama yoon laa bëgg defaraat quoi. combat bi dafa nekk combat boo xam ne. combat bu am important la suma carrière. si si kanam sama place laa jëlaat si làmb te incha allah le huit. nga xam ne damay jëlaat sama place si làmb. man may xale man maa nekk si yoon. man la làmb gën a yaakaar bu dee bëre maa ko dàq bëre bu dee doole maa ko bu dee fit maa ko dama jël combat bi pour wane suma bopp dama jël combat bi moom dama jël combat pour daan ko combat bi maa ko gën a soxla téeméer yoon man combat bi ñaanu ma ko yàlla lu papa am si man damay seeti la leen su dëggalee boppam dañuy xeex dañuy ma daan ko incha allahu rabbi dama xamul ne loo ma yem ma ba jël ma loolu dina dëggal boom rek papa mi ngi wax maa su dëggalee boppam mu duma ko daan ko incha allah te lamb ji dama deux minutes su dëggalee boppam ñu bëri man ak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 maanaam ETDR moom bàyyiwul dara moo meelu réew mi la établissement Touba Darou Rahman yéen doomi fi nekkal. 3 waaw di nuyu ñëpp di ziar ñëpp Ndeye Mbacke di masaw waaw di leen xamal ne leen Sénégal moom nii la waaw jàmm la moo fi xaj jàmm la ñu fi ñaan parce que lu dul jàmm jàmm ko gën jàmm gën jamaa jàmm gën alal jàmm gën loo mënti gis parce que boo amul jàmm doo ko nettali waaw di nuyu ñëpp di masawu ñëpp waaw làmb ginnaaw Balla Gaye ki nga xamante ne ni mooy troisième tigre de Fass ba di Gris Bordeaux dafa déposé rek li nga xam ne mooy certificat médical autant pour moi ne dafa blessé kon combat Ama Baldé dootul am na nga gisee situation boobu waaw mooy mooy li ma doon wax rek si suñ suñ vidéo yële mooy li ma lay wax rek dama ne la nit kenn du ko xeebal jàngoroom kenn du ko xeebal bisam kenn du ko xeebal sëriñam ku feebar moom dañuy ñaan yàlla mu tane rek wér mais promoteur bi la ñuy ñaanal yàlla may ko xolub muñ mooy ko lépp parce que Ibrahima Diop tamit neexul ba neexul mais mi ngi def effort parce que mu tegoon bu ma juumut komba euh, mbay guy gi ak kii am si blessure yu métti mais gis nga kon ndox mu sedd rek si mujj parce que dafa mën a muñ te xam na ni ñoom ñëpp moo leen jaboote man demuma si moom de mais li ma ko doon séentoo si mu rêvé ne dem Màkka gëm naa ne yor na xolub dem Màkka parce que tey am na yu bëri yu ko dal bu ko dal bu daloon keneen du ko bàyyi ba léegi coow laa ngi ñëw. te boobu léegi déggoo mu wax dara boole na leen baal baal lépp waaw ñu koy ñaanal nag mbëri ñu xool apte boobu mu def ñu defal ko bis bu neex. même bu ñuy ñëwaat sax nañ yëngal bis bi ba Ibrahima Diop kontaan parce que biñ feebaree moo leen xaal. kon bu ñu ñëwee dañoo war a remplir contrat bi mais feebar nan nga koy forcer naa ko ñëwal feebaroo. loolu amul. kon dañuy gëm ne daa feebar rek di ko ñaanal Gris Bordeaux yàlla na ko yàlla delloo si loxo mais Ama na bàyyi xel ne Gris Bordeaux daa bëgg combat bi. Hmm? wallaahi Ama na bàyyi xel ne Gris Bordeaux daa bëgg combat bi. te Ama na bàyyi xel ne combat beneen na nga koy xaar boo xamante ni xaaju musiba la musiba àncee ngi ci kanamam. te xam na loolu moom Ama Ama ku ko xool doo ko ñemee bëreek moom. tant yaa ngi koy xool état am doo bëre maa la wax loolu man la am ndax saa yu doxee nga xam ne booy bi jeexalagul bu tuusee nga ne booy bi moo ngi yëg yaramam ba léegi te nu ko neex lay tourner ñaari côté lay tourner gauche droite ba mu commencé ba léegi bu ko neexee day teg prier rul la taxaw si pois lour bu tol noonu kooku boo ko amee foo jaar nga jëli élan de te Ama daa gëj esaat arène nationale bu ma juumee bëreegu fa mhm. mais bis bu fa duggee mu fees dell mhm. kooku dofu dofu dofu pikin bi la. ñu bëri nee nañ coow pale ba ni askan bi meree VIP yi moo tax ñu ci bari ñu ngi delloo avant seen combat bañ koo bëri ndax coow la ñuy bañ mu toppalee est-ce que am na. non non mo ñoom fi ne nii benn benn woy moo fi am mooy li ma la waxoon rek ñaari pala yooyu ñoo fi am ku lekk si maafe yàpp bi ñu tam la dëmm su loxo mbalax bi bari na yàq waaye boo fi lekkee mooy tane maafe bi te gis nga doomu aadama gis nga bu nit bu mu xeeb lekku kenn. nit na ko jàppale rek te yàlla tax yow ñàkk ànd ak yow bu mu tee nga jàppale ko te yàlla tax parce que yow kenn ñuy àndal dañ koy jàppale ñoom ñi si topp seen ginnaaw ñëpp nañ ko xool kon bu ñàkkee lu mat ay 20 mbër ña fa dem ñëpp matuñu 50 mbër. waaw dañuy jàpp ne ñoom bu ñu bëree askan bi dana wuyu ndax mag bu naan ndox bu tàng su ko saa tax. waaw supporter la ñuy bu ñu takkee mu fees dell nga naan moom ndax bu ñu wuyoo. Hmm? moo yow Sénégal boo leen bëggoon a guerre loo si boo leen bëggoon a rey si guerre tëggal sabar rëjëg jëg jëg jëg génn nga saani bomb ñëpp dee. faatu <laughs> la Macky Sall bala moo waroon na guerre daa waroon na roñ garaawaay bi ba mu set wicc ñu naan day bale. ba mbedd yi set wicc ba garaawaay bi jeex xeer yi jeex. mu doog a déclaré nga xool ku sëgg doo am loo for. si Mali laa ko xamee xeer kii Burkina bi ma fa demee këyit pour nga for ko rek si mbalit yi ngay dem ubbi mais munoo for këyit ci mbedd bi. waaw bu meloon ne kon munoo for xeex kon xeex bi yomb. bu fekkee booy fuñ toll am nañ bal ñu toll am bal mais policier bu seen bal jeexee ñu jeexal mhm. moo tax daw lañ mujje mhm. waaw loolu nañ si bàyyi xel nit da nga am loo xamante ni yàlla moo koy may nit bu ko ko bañal ku ànd ak nit bàyyi kook moom lala la yàlla may kenn du ko xañ mais du ku ànd ak nit nga saaga ko mhm. tey jii xoolal Macky Sall bu dee ku ëpp saaga yaay dugg àjjana mag Sall moom fii laay toog di ko commencé wooy àjjana la jëm loolu leer na wala leerul TikTok boo ubbi dañ koy saaga billaahi boo waxee Sonko fissé sa kër lañ lay fekk fichier rek. pour la. ëpp na pour la. Ama Baldé fi mu toll nii ci carrière am mu nekk xale toog presque cinq ans sa ngemb laalu ndox bàkkuwoo xeexoo woo daanoo daanuñ la est-ce que loolu méttiwul ci xale. non metti na parce que ñi mu jël ñemewuñ ko. ah 100 pour cent ñemewuñ ko. Ama Baldé ba ma ko xamee ba léegi benn blessure la mos a déclaré si combat muy bii passé mais beneen dëkk xamuma ko si moom. am de mbëri bu mu si jàpp ba bis bi ñëw nga daw ñeme wuñ ko doole yemul ama ku ko bëgg bi nga bëree ku ko bañ di nga bëree saa yu tojee nen sa kaw la jëm musul toj nen di léewtoo loolu mooy problème mu mbëri te daa am doole te booy yambalañ amaa Baldé bañ ko fii la mais bu tuusee mu neex bu bëree mu neex nee naa la Ama Baldé rëg-rëg ay genre yooyu bu ñu nekkoon sama mbokk dama leen di garder comme ni ñuy garder oto guddi. waaye mbër muy dugal cent millions si kër ban nit mooy oto sax boo ko jëndoon teg ko si kër gi du dugal loolu. mel ni mbër sa benn mag wala sa benn rakk di ko dugal. yow doo garder kooku. kooku mën na dem ba kër ñoom Ama Baldé mi ngi nii def def na ko étage tey ñëpp dëkk na ku dëkk si kër gi dëkk nga. dafa am mbër yoo xamante ne boo ko yoree sa kër da nga ko war a garder bu si bañ sa bakkan. parce que bañ sa bakkan mooy yow mi magam bokk ak moom day ak baay bu nee day dem nga laxasu si ndigg li du la rey te dina toog man dama koy jaral. mais am na ñoo xamante ne dañuy ñëw fii bokk ak moom ba pare di ko xeex bokk ak Gris Bordeaux ba pare di ko xeex waa Fass gépp bu ñu jàppalee Gris Bordeaux waa Pikine gépp jàppale Ama Baldé combat bu neex lay doon Gris gàcce ngalaama Gris ku mu mës a ñam nga am déet ñu bagaar lu neex làmb ñëwaat ñoom ñoo ne làmb fay na na mbëri fexe ba làmb du fay loolu dong mooy joom mooy fulla ji mbëri yéen a war fexe ba làmb du fay wooy woowu muy woyal mag Sall fexe ba bu mu ko dal barki yàlla Macky jëndal leen billet yëpp dugalal leen personne yi parce que loolu lañ soxla. ah dégg naa Issa moom bu ñu tëggoon lamb VIP bi 8 kilos lay nekk. lenn rek laay ñaan Macky Sall ngir yàlla li laa war a sóori génneel ñu suñu Ada Fass mi ngir yàlla dimbali ñu rek ngir yàlla nit ku ne dañ koy baal Ada Fass ñëpp xàmme nañ ko bu ko defaatee ñu def ko comme bébé jàpp ko yóbbu parce que réel la borom tayul réel la at borom a ko tey benn ndimbal moo si des Macky Sall boo ñu jàppalee ba Ada Fass tëbaskee këram barke yàlla Macky Sall day mel ne midi ak cinq sondeel di nga gën a am ay fans parce que kee ñaari jabar nan nga koy takkee nekk si police bi war a jënd ñaari xar tëbaski ñëpp di tëbaski heural dal ko kenn mun kaa ñaanal du mbër du keneen man xamuma Ada Fass xamaale wu ma ko mais damaa xam ne comme que mbër yee laa naan buñ moomoon garder ko kon kële kee waaw jàppale ko waaye mu tellu si liggéeyam ngir yàlla na si ñëpp ñaan sëñ Muntaxa sax bu si mënee ñaan na si ñaan que booy boobu bu doon mën ak keneen a si yem am na ay nit ndax saa yu takkee làmb ji boo weddee seetaanal ay image am nga xool tribune bi ñu koy bëggee bari na mhm. nañ ko jàppale xale la te mën na defar leneen ëllëg te xale mooy juum mhm. doole boo ko yoree yor xaalis jigéen ngay xalaat boo xalaatu jigéen yëfu jàmbur la te yàlla moo ko natoo moo xamuma moom la xawma du moom erreur la kenn xamul lu ko leer mais message la rek comme porteur de voix lañ dañuy wax dañoo ñaan yàlla jàmm am si Sénégal te man ku ma xam-xam ne gaynde laa parce que yàlla joxuñu ma xaalis moomu ma leen xamuma leen mais nañ ko dimbali mu génn teelu si ma ñaari at nga toog ko kaso entraîné woo mën na yàq sa carrière nañ waxante la fi ne mën nga fa jëlee feebar Macky jàpp si te yàlla tax même ku dul Macky Lat Diop ak ñëpp waaw bu tey la Ada Fass di génn non dina doole Macky lu bëri maa la wax lii. incha allah Ada billaay suñu xel baa ci moom bu baax a baax di ñaan yàlla rek yàlla mi nga xam te ni dara ump ko waaye dara tawu ko mu daal di koy delloo li nga xam te mooy liberté am ak ñi ñëpp ñu nekk foofu noonu ñëpp dellu seen ay mbokk ci Ama la des ba léegi financièrement préparer benn combat rek day épuisé mbër macha nga préparer combat ñetti yoon bu demee ba waru ñëw rek mu jeex financièrement est-ce que Ama nekkul à bout. Ama bu avance Gris Bordeaux bi ñëwul woon jeexal na avance sama yeneen vidéo yi dama ne woon Pikine na fexe ba jàppale Ama Baldé balaa Modou Lo di pare parce que bu ko autorité yi jàppalewul pour mu àggale day jafe maa ngi ko doon wax sama yeneen vidéo yi tey ajaat nañ combat bi li mu pare woon lépp day perte commencé jiwaan Ama Baldé ren bu summeekoo ndaw biteel yu forox yàgg xooj oh pop pop nday mbàkkee dégg ndax yàgg xooju ndax biteel yoo xooj ay at boo ko waree ubbi ndaw xeeñ mhm. moo tax tey mbër mbër daal ak fas jeega yam ku leen judd lu mën a xam fu ñuy bañee dama leen ne woon fii mbër bu amee xaas borom xaas lay àndal ñu weddi ko xanaa mbëri tey dem nañ si Macky Sall mhm. ñëpp gëm nañ ko lu ma leen waxoon mhm. ne la woon mbër ak fas ak jeega yam ku leen judd lu mën a xam fu ñuy bañee mhm. xool leen man mi ànd ak ñoom ñu dugg bàyyi ma fa tey maa ngi ni di kaasal aada faas <laughs> waxal te bàyyi woon nañ ma fa bu ma neexoon ma gis sam bopp ne Macky Sall comme que ma pare tàkk si ko fari fa ma neex wax la ko neex mais àdduna demewul noonu bul def sa moroom am lii rek nga ne danga nga koy am dem màkkaa ngi nii di xew tabaski est-ce que ñëpp den génn nañ ne dem màkka xew na damay dem mm-hmm. waxal lu waay jàpp nag nabee ko gën mm-hmm. te kenn génnul boo xante naan dem màkk xew na damay dem mm-hmm. te bu jasineer xewee ñu def ko bu victuit xewee ñu def ko bu oto bu rafet xewee ñu def ko bu kër defee ñu def ko waaye dem màkk ku soo gis ku koy boo xante kuñ ci dimbaliwul yóbbu la doo yóbbu sa bopp métti na loolu te lu waay jàpp nabee ko gën kon àdduna man foofu laa koy xool moo tax du ma xeebal nit dara te bu dëgg jotee ma wax ko man la komi yàlla ko mi ama instant bi ñu toll ñu bëri nañ comme Gris Bordeaux blessé wu na ça fait l'occasion nag combat royal bi ñu doon xaar ni jéem koo réglé instant bi est-ce jàpp nga ne Ama bale dafa war a ndox dem bëri ak Modou Lo wala. ay waay Samba bu ko Modou jëlee dama kaala la. Ah, lu tax. gars yi duñ jël yàq buñ moomu. Hmm? bala nga kaa xam ñu ubbi bool dañ xam ne bii nday Mbàkke ko toog nga ne waaw mu ne indil ma bii. ku toog bi ñun la ami ñu ne wuu man day Mbacké laa xaar. Mm-hmm. amu si droit. Modou Lo léegi nga dégg ko mu bind benn bataaxal nga xam ni moo la gën a yeewu fuuf parce que xam na ne ba yàqu na si moom la jëm te parewu ko. ama fële la pare woon léegi daal ama moo fi nekk crème glace bal moom fu mu jëm ñooña daw mu dem feneen fu mu jëm ñooña daw mu dem feneen kon li ma lay wax ne la ñi ma wuñ koo ngi nii mm-hmm. ama boo ko fëggoon ne ko giri wala a kee ndax pare nañ fii laay tëdd ne la danaan waaw ku si pare ñëwal mm-hmm. booy bi dafa pare. boo parewul doo ko daan. mais na def ndànk rek ci kenn laa koy wax na defaat ndànk si Modou Lo. Mm-hmm. rumeur ngi daw nag ñu bari na jël temps buy jëm na jël temps mais bu mu defee combat rek ne day faj mer fee. day faj non non ñu bari nee nañ ki nga xamante ne nii mooy Modou Lo ci mm-hmm. ay doom boo ko mënee définir day waaj a bàyyi làmb ji est que jàpp nga ne Modou mën na bàyyi làmb yóbbaale couronne bi. bañ ma waxee ne ma Modou Lo nee na ibaadu la du ñëwaat laa leen ne moom jom ji ma ko xamee du yor roi des di ko bàyyi mu du der la de. ñaari avance sax la léegi. barki yonent bi laa la wax de xamuma ko de mosuñu joxante loxo mais Modou Lo der la keroog bi mu ñëwee si luur yi ñëpp ne du du jël roi des arènes kii luur yi dañ ko ëpp doole. fexe na ba téye ko boppam. ñu ne de mu ne bu ma ko jëlee di ngeen xam ne ñi ko jëloon nag man bokkuñu. te loolu laa ñam si moom te loolu laa koy xaare gis nga Ama mi waxoon ne moom Modou Lo waxoon na ni stade bi buñ koy tabax Pikine lay doon boobu stade amagu fa. ne dinañ tabax pikin stade mu jël mag ñi teg ci kaw jël booy teg ci suuf ma daan ko jaar autoroute ñibbi. waxoon naa leen ko sama vidéo bi waxaat naa leen ko te stade bi arène nationale bi Pikine lañ ko tabax. te bu ko Modou Lo di wax booba booba tabax bi xewagul booba moog le moog kii moog moog moog ah, ah, kii waay ah, mbëru kër mbëru langsaar bi nees. ba muy bëri ak nees la waxoon loolu ci biir. loolu 2010 ca guddi ga 2010 la ko waxoon. te xoolal léegi stade bi arène boobu lañ ko tabax mook Ama Baldé taxaw na kon waxi Modou Lô kaw ñoom si kaw teg booyi si suuf ma daan ko si digg géew bi jaar autoroute ñibbi te booba ku ko xamal ne bëre bi autoroute la gën a jege te xoolal Modou bu ko daanee bu ko neexee day yéeg rek jaar autoroute ñibbi. kon booy bi day gis bàyyi si xel loolu ma tëjee ci Ama ñu bari nee nañu Ama li tax ne soutenir VIP yi wala bokkul si seen clan boobu noonu moo tax ñu koy xeex loolu am na wala. te leen feebar bu duggee si ay mag day déranger ñëpp ama feebar la ku ko bañ bul jëli comprimé maa la wax loolu ku mu avance am écrit bu mu fanaan kenn du nelaw bu dee ay coach nga fa kenn du nelaw. ndax ama doone fatal xeex bi kese te fatoo bëre bi te fatoo mystique bi. Mhm. ñett la boole te ñett yooyu ñoo yor mbër mbër day am gàllaaj am doole am fit. te bi ngi yëpp. ñaari kàddu Ama Baldé ak Gris Bordeaux balaa ñuy tàggatoo. Ama Baldé ak ba pare. voilà. ama li ma lay mën a xamal mooy xoolal bul mere si si si Gris Bordeaux rek dem si Modou Lo non man d'accorduma loolu si moom jëlal sa temps booy dem si Modou Lo booy dem si kee jëlal sa temps parce que bi nekk na loo xamante ni ku ngemb kontaan waaye ku daanu ruus te yow fi nga toll nii jël ñaanuñu ko yàlla de mais defet waru la defaru moo la war ak teg sa bopp si yoon nekk bopp te gis nga am na yu bëri yoo xam bu ko mbëri fàttee yow ama yow yaa a mbër yëpp boo leen mere woon ama def benn benn bu neex yéen ñoom war nañoo xool ci ama bëggaat mbër yëpp bu dee gor lañ pour lañ ñuy bëgg ama moom mi demul rek ci Sonko moom rek moo fi am ay ay ay vie yu baax ñoom waroon nañoo xool ci ama yërëm ñeneen ñi ama ak Balla Gaye ay magaraka lañ pour lan ngay mere ama ngay bëgg ama mere Balla Gaye kon yow sa bëgg des na ama boo ko bëggee waru ko assuré na ci bàyyi xel ci loolu ku la mbiiw tey bu subaa moo lay yuuxu tey Sénégal bi nga ci nekk la ak bi ñu la xamee ak bi nga xeewee amul lës amul keneen des na tuuti si kanam lës lu mu wax ñu ne tegal fële kooku du nit mais man sama ngor laa wax de ak sama jom dinaa fexe ba samay sët buñ setaanee samay vidéo xam ne seen papa gaynde la man loolu rek laa res li si des li jëntiwuma ko ah Gris Bordeaux ñaar laa koy xamal yaa ngi jëm si maafe moo xamante ni boo bëriwul tege dege doo ko jeexal wallaay ndeysaan mais Gris borom jom la boo xamante ni ama mosoo am xeexkat mais yaa ngi doog a am xeexkat ndax giri loxo yee neex bu la dóoree camion ngay yaakaar ne moo la mbëkk nante la de du ngaaka de te giri billaahi bu ma doon yow damay teg xeex bi fee bëreek ama bis boo bëreek ama di nga am lu bëri teel koo jàpp ndax ama saa yoo ko jàppee rek day bëree day bàyyi xeex ba kon teel koo jàpp xeex ak moom mais bis boo xeexeek ama di jël coup boo xamante ni mosoo koo jël ndax ama loxo baa diis waaw lu mu mos a dóor wadd nga <laughs> ku ko wedd nga laaj ko ba ma yóbboo sama mbër ma ba ko mbër ma rombee tooñ ko benn la ko fetal mu wàcc wóor na nday mbay maa la may loolu doole yemut di ko ziare ñëpp di ziare nday mbaakee dama dama ko mention spéciale parce que dafa dafa yaru quoi dëgg neexul waaw billaahi du man du ma marine nit du ma wax lu nekkul si mais yàlla ko yàlla dooleel dooleel ñëpp parce que boo demee ba ay mbokkam di ko gërëm boo ko gërëmut yow defe nga tax man debal naa ko aw xew famille bi ñëpp koy gërëm bàjjanam sax nee na moom buy togg da daan ko bu laal te kii yaakaar naa ne micro rek la mën te mënul ceeb ndekete lu mu ceeb ngéwal la hop hop hop kenn du moom juufa ñoo xabaay Samba borom gaañu ayca di ko bëggee bu baax a baax yaakaar naa ne waxtaan bi am na solo lool daal dinay faram fàcce li nga xam ni moom mu nekk actuel ci dëkk bi yaakaar naa ne tabaski mu ngi ñëw di ñaanal ñëpp xar ak xaalis ak xartuma bu baax a baax waaye saa uh-huh. bu baax a baax sama mag ji yow mi nga xamante ne nii seetaanoo benn yoon dama lay kontaanee bu baax mais nag sama cameraman bi yóbbante na ma ci yow nee na ñetti abdu yi gesneer bi mu ngi koy xaar xam naa ne mën nga ko te di nga ko def tàmmal nga leen ko làmbar nga ne kontaan na ci yow bu baax a baax a la gërëm na la waaye damay sant nga xamante ne man ñoo may jàppale ah loo chaude champion boobu incha allah ku ci mel ni loo chaude ba ca yaraax maa ngi koy béggee bu baax a baax mi xam ne tubéy bu ma sol wala dàll bu ma sol mu ngi ci naar fall wala naar bu Balla Gaye 2 borom Liberté 6 maa ngi koy bëgg bu baax waaye di ko kontaanee waaye di kontaanee ki nga xamante ne nii mooy Kaw Gourdin sama téer bi yaakaar na ne mayo bu ma sol lekk xale boobu moo ko ñaw di ko ñaanal jàmm bu baax a baax waaye bëgg ci yéen bëgg ci internet yi lamb loo bëgg a wax am tëj nañ de lamb non tabaski gi daa dëgër ren li ren il faut ma woo gaay bu yoboo sax ñu ne lamb day wooteel wooteel waaw kay saa Touba moom moom bu ñëwul sax baax na ndax moom saa Touba bu defalee sama waa ji mel na ni defal na ma ndax sama waa ji dafa nam grand bubu quoi. saa yu ma woggantee danaa ma cëy bu ma saa baa laalee. ma ne ko noppi rek borom gaynde la de. taalibe Serigne Saliou jàppale ko jàppale ñëpp. mais nag maa ngi woo képp koo xamante ni rek bëgg nga làmbaloog rek jàppal si tebes gi abooyo. kese mais Abdou Aziz bu bu Europe sama parisien bi maa ngi lay woo ni la tabaski ki dëgër na de booy yàq nañ tool bu yàgg koo fi bés jees mu ne la dëkk bee dëgër waaw ku sag boole xar nag xaw ma la doyee dugub di nuyu sénégalais yëpp di nuyu waa Ndar. Oh, waa ndar mu nu ma leen a fàttee barke yonante bi samay booy samay waaya fa samay fans fu fans ne rek nday mbaaka nuyu nañ ko ziar ko sëriñ nuyu naa la sëriñ ak marot arot tey moom moom moom doo fi mën a dóor waaye an tabaski gi bu eh, kii jaf veer yi borom veer yi oh maam Cheikh maam Cheikh xoolal yi ma ñam temps dama am xaalis de billaahi bala ngaa xam ne ma am xaalis rek nga ñëw seese ma doole yemul se xoolal da nit garab bu sutee rek dañ kaa sutante jal bu jëmee kaw rek dañ kaa jalal bu du woon ñi may dooleel du ma ko mës a am tey jii kenn du aboo sañ moom mi nga xamante ni sama teraanga mooy teraangaam sama bëgg-bëgg mooy bëgg-bëggam ak tout les équipe amul ku ñu bàyyi yàlla na leen yàlla dooleel seen laa làmb nag abonnement yi des na de tëgg-tëgg neexul mais gars yi nañ may laalal jees boo amul ku la laal sax nga dem ni keneen taalal sa connexion mu taal connexion bi nga laalal ko jees loolu dong lañ soxla tax bu soree rek aboo defal ñu dara ñu dàq fas bi dàq gaay yi doole yemul. kontaan ci yéen bu baax a baax yaakaar na ne actualité làmb bi xaw a ruus fan yi xaw a indi polémique waaye juddaatal làmb ndax ñu bay pare woon nañ ci waxu làmb soo waxee waxi làmb sax dañ leen du mooyu ah mais fan yi gis nañ làmb coow lu judduwaat na Balla Gaye ba mu déposé certificat médical ñëpp di wax teguñ ci deux à trois jours. beneen bi nga xamante ni moo bett ñëpp daal di ñëw muy ki nga xamante ne nii mooy Gris Bordeaux le troisième Tigre de Fass moom tamit ñee dafa blessé mu daal di dugal li nga xamante ni mooy certificat médical kon combat bi da doon am diggante amaa Ama Baldé yàqoon dootul amati may laaj nag ndax affaire bi ci amaa Baldé la wala ci Ibrahima Diop la sama doomu baay bi di ko encouragé bu baax a baax xam ne lii ko dal ni métti na yaakaar naa taxawal ay kombaa saa bu toogi jëmee ba mu des ay fan combat bi yàqu dafa métti loolu loolu nga dépensé ay millions te combat bi ne yaakaaroon ne moom mooy sauvé waaye mooy jox espoir ki nga xam te ne mooy Ibrahima Diop ba mën a percer ci làmb bu baax a baax damay toog nag ñu waxtaan ci bu baax a baax mu demee ak torof torof yi dal Ama Baldé sël bu ndaw bi ndax war gisee nuyu naa la nuyuwaat naa la làmb bàyyi la nga nuyu internet yi. waaw nuyu naa la ziar naa di nuyu Sénégal gépp di wax salaamaaleykum salaamaaleykum monde entier di nuyu diaspora beeg ñëpp amul ku làmb bàyyi képp kuy bëgg làmb rek làmb bëgg na la di la ziar di la ñaanal jàmm waaw di la xamal ne waaw di nuyu aboo sañ-sañ sunu patron sunu lépp. borom borom daa am séet waaw.